day bari ay gox yoo xam ne ay nit ñu ab lim nit ñu bari dañ fay daje lu ma ni aliya lu ma ni ndindi yu bari du rek ci boori jumaa ji maanaam dama ne nit ñi duñu mën a sax tasaaroo yu ay gox yu bari yoo xam ne non seulement nit ñi dañuy daje biir Touba waaye ci yeneen gox yi ñu bari dañ fay ñëw dañ fay nekk te fu nekk ñun tam ñu war faa ne moo tax dinañu fexe ba ci wàllu wér-gu-yaram quinze postes avancés mu fukki photo avancé ak juróom ak yi nga xam ne sax waa principal te sëñ bii wax leen léegi ñu war a ñëw jàpp ci liggéey bi ñoo ñëpp day ñëw ndax nit ñi fay teewee euh, dina ko laaj dina ko dañ ko soxla lool ñi nga xam ne mën nañu indaale feebar ñi nga xam ne itam ñëw nañ fa dara dal leen fa ñaanuñu ko yàlla ñu fekk fa loo xam ne mën na leen a wallu may leen garab garab yi dina doy incha allah waa PNA déjà def nañu commande bi docteur wax na ko léegi dina ñëw ñu mën koo teg ci poste avancé bu ne am ay garab yoo xam ne dina mën a wallu ña ci biir jumaa ji aussi dañ fa teg benn euh, dispositif boo xam ne ñi nga xam ne dañoo loru urgence maanaam ñàkkul koo xam ne pare mu xol wala leneen moo ko daaneel du ñu xaar foofu lañ koy defee premier traitement yi ba wallu ko ba benn loraanga du ci tukkee lu pour wane ne rek ñun li ñu bëgg mooy ñun ñi nga xam ne ñooy région Diourbel rawatina administration ak waa Kër Sëñ Fallou ak waa Kër Sëñ Touba yëpp képp kuy ñëw fii nga ñëw màggal ci jàmm delluwaat ci jàmm si sa njaboot euh, bàyyi dëkk bi ci jàmm tam loolu nag ginnaaw nit ñu bari dañ fay daje mesure yëpp jël nañ ko parce que ne incha allah lépp. daal di aw yoon bu dee wàllu service d'hygiène euh, déjà ñoom fexe nañ ba am produit bi ba tàmbali liggéey bi loolu dégg ngeen capitaine Fallou Sarr wax na ko moom xam nañ sawara sawarteem ak taxawaayam lépp def na ko pour dara bañ a sooxe naam naroon na am ay yeex-yeex waaye moom góorgóorlu na ba liggéey bi tàmbali na docteur moom tàmbali na bu yàgg te sax ren dañuy sant yàlla ndax am nañ sami sami bu jot bu Tuuba te loolu amuloon daaw nga xam ne yokkute ci digg ci diggante bi am na nga xam ne dina gën a maa gaan wàllu nit am ay ambulance di mën a jëlee nit ñi fu mën a ne loolu nekk lu bees loo xam ne alhamdulilah rabbi alamina euh, màggalu Kazu Rajab bi tombe na loolu sami bi déjà commencé def liggéeyam loolu lépp sant yàlla li mu tombeel la ci wàllu ndox dégg nga gën ko am na forage yoo xam ne maanaam li muy génn ci ndox dafa wàññeeku moom nañ naan baisse de débit loolu nag bu ñu si jógee tey ci ngoon denc xayma seet forage yooyu naka la ñuy def ba ñuy mën a joxe ndox mu doy luñ ci mën a réparer réparer ko di ngeen maire joxe na euh, wane na taxawaayam pour ñu xool bu ci ci nekk lan moo ko téye ñu jëm a jëm ko jëm ko saafara ba ci sax centre de santé bu poste de santé bu ndindi bi nga xam ne ay sareet yu duy ndox Euh, te loolu xam ngeen ne ndox moom ci ku feebar ndox mu sell la la war a doon ñu xam ni ñu koy duyee fu ñu koy duyee loolu bokk na ci paj mi waaye hôpital moom warta ñàkk ndox mu tax jël nañ dogal sax ne tey ci ngoon nañu fa yóbbu bâche ba ker ba problème bay faju di ko duy ñetti fan yu nekk amee si te ni leen ko maanaam loolu mooy na na faju bés ni ki tey waaw ndaxte euh, naam dañuy waajal màggal gi waaye da ci am problème yoo xam ne waa Touba si seen dundi bus bu ne dañ ko jànkoonteel buñ ko mënee fajaale ci màggal gi mu doxee fa sax saafaraw rek rabbi alamina lépp loo xam ne rek dafay dem jongal impacté dund nit ñi ba ñu mën a dund dund gu gën a ñoŋ tam suñ ko mënee bu fekkee ci màggal gi la war a jaaree tam na ci jaaree sant yàlla. ñu am yëpp tam deeñ am màggal deeñ am euh, soxla si faju benn yoon te ñun buñ sa sañoon aussi soxla yëpp day day faju dëgg yàlla moo xam événement am na amul ndaxte askan wi moo fi taaj ci auto ñoo fi taaj autorité yi. si seen soxla la ñuy dox seen soxla la ñuy jaamoo si wàllu kaaraange aussi dégg ngeen mesures yi fi jël police dina def li mu war li ko war yëpp patrouille yi fu ne ñu nekk fa di leen gis di régler circulation bi di mën a nekk ci ci ànd ak comité d'organisation bi ci cérémonie bi ñoom daan nañ daañ ko taxawee balay ñëw ci jur bi ba bu passé ba nga xam ne du am buuxante kenn du mën a lor kenn gendarmerie waxi noppi ñuy félicité bu baax di encouragé le capitaine Wade bi nga xam ne mu ngi soog a ñëw ci région bi tombeek lii muy nekk première màggalam di ko ci ñaanal di gis taxawaayam yaakaar ne am na yaakaar ne dina liggéey liggéey boobu mucc ayib ba bu jóge ci màggal gi lépp daal di mën a yomb ci moom xam naa du yomb ba liggéey moom yombul liggéey gendarmerie yombul waaye yàlla defal ko sutura ba euh, lépp loo xam ne ay kilifaam ci gendarmerie xaar nañ ko ci moom Euh, yàlla may ko ci ndam ci ci liggéeyam ndax gis nañ taxawaayam ci wàllu courant xam ngeen ne seen lekk taxaw na ndax tam courant du mën a ñàkk sa la ndox mi aju sa la lépp aju lu bari waaw ñoom demande provisoire yëpp dañ ko fexe ba mu féete boor dañ ko satisfaire loolu engagement boobu boo xam ne dal na xel dina am ay équipe permanent ay permanence yoo xam ne itam ñoo fay ne ci post transformation yi fa nga ne bu dara amee wala coupure wala dara rek dañuy daal di gaaw gaaw saafara loolu nekk na loo xam ne lu lu dal xel la loo xam ne daal ku jëm ci am màggal dégg lu mel noonu sa xel dina dal. bu dee nag wàllu ONAS liggéey bi dina tàmbali ñu ànd ak ak maire yi déjà bu ñu xayma am na 400 voyages yoo xam ne mañ ko def pour pour daal di banque kër yi 400 voyages maire dina jël 160 yi ñoom ñu jël 240 voyages yi euh, waa waa ONAS. maire daal di tàmbali na maire ngi nii tàmbali na liggéey bi joxe na carburant joxe camion yi tàmbali nañ liggéey bi yaakaar naa ne loolu lépp bu ñu ko boolee ci wàllu manque bi du am benn jafe-jafe incha allah fépp foo bëgg fu ñuy yaakaar ne ay nit a nga fay daje euh, euh, si wàllu toilette yi dañu fexe lépp daal di daal mën a ñoŋ ba nga xam ne dañ ko am niñ ko niñ ko bëggee euh, loolu daal ci gàttal fekk na déjà wàllu matt meek yooyu yëpp bind nañu lettre yi wàllu cortège bi war a jógee Dakar aussi gendarmerie dañ fexe ba ñu am flèche pour dimbali leen wàllu daan aussi sax war nañ suñu xel dal na la pèlerin yi dundoon ba le passé ah ba xaw a nekk ci frontière bi xaw faa yàgg yàlla dimbaluñu loolu yëpp yàlla saafara na ko ba nga xam ne loolu dootuñu dalati li ma mën a wax daal mooy dañ jëm ci màggal ga xel mu dal ak xol bu dal à partir de maintenant nag commencé woon nañu si liggéey du tey lañ ci tàmbali ba CLD bi taxee ba léegi dégg ngeen sous préfet ak préfet ànd nañ ci ci liggéey balay boo bés bii xanaa daf fekk ne à partir d'aujourd'hui tey moom ah dootuñu dañuy mën a gën a baral tànk yi lépp lu ñuy def tam ñu gën a taxaw ba nga xam ne bés bu ñu ci àggee vingt 28 ndax màggal gi le 28 lañ ko lañ ko jàpp incha allah dina fekk lépp yam lépp lu ñu waroon def daal ñun ñii ñu xam ne dëgg yàlla taxaw nañu def nañ ko pour mu am taar beeg la fa war a am kaaraange geeg euh, yombal beeg dem beeg dikk beeg taxawaay bi ci war a am ñun fekk ñun am nañ taxawaay boobu. loolu daal laa bëggoon a biral euh, di ko wax mbokk yi di wax sëriñ bi mu yokk ñu ñaan ba ñu fi yéene yëpp gis ngeen ko yàlla yàlla mottali ko ndax euh, bés bi jar na ko tolluwaay bës bi.